léegi dañu hmm. accord on commence toujours avec la religion. la politique est au milieu. on termine comme on veut. d' accord clim bi est ce que taal nañ ko. clim bi kii baa fii téléphone. taal nañ ko d'

54 32 01 test 54 32 C'est vous qui présenter vos collègues des deux organes Jafala FM et Jafala International et Sénégal voilà voilà Il y a aussi euh, l'ERAL qui, est en, qui, suit, euh, voilà, qui a envoyé les questionnaires et, et qui font des directs aussi.

wax ko yem mi bu dee dafa bëgg seetaan yem wax ko ko ne ko ko wax ñu ci des ñu mën a jot moom ak na fi yëpp wax na ko waaye am na ko seetaan téléphone Amen. beaucoup waxal xale yi ñu arrêté seen bruit yi xale yi ci suuf demal demal foofu ne leen dañu arrêté seen bruit ba ma pour enregistrement bi hmm? waa xam naa ko xam nga bu xale yi defee bruit day jàll ci direct bi loolu tax ma wax leen ñu arrêté de 2004 à 2009 su Wade si en euh, d'abord ambassadeur itinérant auprès du président de la République ensuite ministre conseiller ensuite ministre chargé de la nouvelle capitale qu'on devait faire à Lompoul ensuite ministre d'État sans portefeuille Ce sont les quatre fonctions que j'ai eues. Mais je suis toujours euh, conseiller, avec rang de ministre, de plusieurs chefs d'État en Afrique et dans les pays arabes. Je suis également conseil du, du, département d'État américain pour les affaires du Moyen-Orient. Et c'est depuis 2000, 2004. j'ai été euh, plusieurs fois envoyé spécial. Hmm? Envoyé spécial président américain. J'ai été envoyé spécial de chefs d'État tels que Bongo, tels que le président Gué de Côte d'Ivoire. Euh, là Bagbo, aussi dont j'ai été conseiller. Euh, je suis le dernier... Euh, la dernière personnalité étrangère à rencontrer Thomas Sankara trois jours avant sa mort. J'ai aussi été... Hein? On peut toujours en parler. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen di rafetloo ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walf TV euh, di leen dalal ci waxtaan bi nga xam ne nañ ngeen ko amal ak docteur Ahmed Khalifa Niass Seck nag waxtaan bi nga xam ne lu yaatu la ci wàllum actualité ak fii réew mi toll mën na la ànd ak samay euh, confrère ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Tidiane Kandé nekk ci site internet bi de Sénégal te ñu ànd ak oustaz Seydina Aliou Ndiaye. nekk Jafra TV international euh, ma rek ngeen euh, présenté euh, bu fekkee ni joxe nañu kaddu bi ba pare kilifa gi nga xam ne moo ñu fi dalal docteur Ahmed Khalifa Niass ñu ngi lay nuyu. ñu leen di fay yéen ak képp ku leen di seetaan ak fu mu leen mën a seetaanee ci àddina bi di rafetlu yéeg bi nga xam ne. Walfadjri ça monte ça monte ça monte et ça continue de monter. la voix des sans voix Walf TV moom ngeen di seetaan ci sunu plateforme yi yëpp ma jox kàddu gi Cheikh Tidiane Kandé ci sama naataango nekk Sénégal mu ngi lay nuyu. Diallo maa ngi lay daan di rafetlu liggéey bi ngay def euh, sant ko sëñ mu ngi yéeg may nuyu sëñ boobu nag moo jiitu ma ne boobu bi nga mujjee moo jiitu ndax ci laa judd ah, dina ñëw léegi ci présentation complète bu docteur Ahmed Khalifa Niass waaye ñu jox kàddu gi rek euh, ki nga xam ne mooy itam oustaz la euh, Seydina euh, Aliou Ndiaye Jafra TV ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo Diallo di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu teewal fi nga xam ne mooy Jafra TV international muy kii bi nga xam ne moo dajale lépp daal ñëpp xaj ci biir waaye nag di nuyu ki nga xam ne mooy docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. Euh, Walf TV ci àdduna bi ba kàddu jërëjëf euh, Seydina Alioune Ndiaye docteur Ahmed Khalifa Niass euh, ràññee nañ la ci religion bi kooku moom kenn du ko naatable waaye itam ci geneen wàll ga nga nekk un homme politique kon dinañu permettre ñu aborder des questions un peu d'actualité buñ jógee ci wàllum religion bi dem ci wàllum politique ensuite ñu dem ci wàllum diplomatie hors de nos frontières ci euh, njëlbéen nga ñu nara a waxtaanee li nga xam ne moom mooy actualité bi euh, ñu fi démb Arafat la tey am ñoo xam ne fii ci Sénégal dañoo julli tabaski am ñenn ñoo xam ne itam suba la ñuy julli ñuy woowee la majorité est-ce que li nga xamante ne yàgg na fi am ñaari tabaski wala ñaari korité hmm. yow en tant que homme religieux hmm. guide religieux chef religieux ànd nga ci waaw xam nga senegal yi souvent dañuy raisonner ànd naa ci wala ma ci d'accord naa ci wala ma ci mais tey kii góor la boo d'accordul ne góor la est-ce que tax tere na koo nekk góor kii jigéen la ñàkk d'accord ci mu nekk jigéen tere na ko nekk jigéen déedéet affaire bi question d'accord na wala d'accord man sama façon. ànd question bi du ànd ak ñàkk ànd. ndax ñàkk ak ñàkk ànd ànd ñu kii góor la wala kii du góor kii jigéen la wala kii du jigéen yëf yi nekkul foofu mais boo ma laajee explication naa la jox explication. léegi lan mooy le fait. voilà le boobu fait boobu jàllo euh, du jàllo la dafa am d'abord ci religion yëpp bala ñoo dem ci l'islam nañ la jox christianisme. su fekkee ne catholique yi ñoom ñi ngi feetu euh, nuit de la nativité euh, la nuit du 24 au 25 décembre orthodoxe yi nga xam ne chrétien lañ comme euh, Russie comme Ukraine comme kii comme Égypte comme Éthiopie ñoom c'est en février la ñuy fêter la naissance de Jésus premier jour de l'année ci réew yu bëri sax premier avril la woon même ci calendrier grégorien grégorien bi ñu yore premier avril la daan nekk pourquoi le premier avril parce que premier avril mooy le premier jour du printemps même bu dee day commencé officiellement le 21 mars mais boo tax ñu naan le poisson d'avril dama lay nax nekkatul le début de l'année euh, donc wuute yooyu nit ñi wuute ci bés yi mosul mën a créer une différence mais bésu Arafat benn bés rek lay doon amul d'accord naa amul d'accorduma tey samedi kenn mënta taxaw Arafat ne man suba la Sénégal di tabaski kon ñun waa Sénégal dañuy taxaw tey Arafat samedi jamais parce que lu tax parce que bésu Arafat moo fonde aj te aj mooy cinquième pilier de l'islam am nañu ko def quatrième peu importe donc pilier la yonent bi alxaju Arafat ku taxawal Arafat ajuloo da ngay dem ba déwén nga ajaat leneen loo loo deful nag ci biir mën nga ko rey ay xara ki gëléema ki nag pour remplacer ko mais pas Arafat boo tardé Arafat jeex na si fini donc euh, c'est important ñu xam ne ajjuma moo doon Arafat mais aussi feetu l'islam yëpp muy kori muy tëbaski dañ ci may ñetti fan donc ki parce que julli gi julli gi du farata nit mën a rey xaram sax te du julli ji bu dee am na ngantu ñàkk julli ji julli gi sun lu ñu recommandé la mais du loo xam ne boo ko deful da nga koy fay du comme tisbaar ak takku tàkkusaan donc kii julli tey am na euh, julli premier ordre ki rey julli suba am na deuxième ordre ki ko def gannaaw suba am na troisième ordre am na téere yi wax ne sax ki ko amul feeg weeru dans vingt jours fi weeru idul euh, xijja bi di jeexee bu dee boobu la ko door a am boo ko reyee am na tabaski donc ñu xamee ci mais du loo xam ne euh, nii rek la war a demee wala naa rek la war a deme yàlla nag mi ngi ko santaane ci bi mu waxee ne fa salli li rabbika wan xar na nga jullil sa borom te nga rendi naxar sax du fi du firi rendi zabx mooy rendi waaye en xar mooy jam looj looj la tudd looj la tudd ci olof maanaam nag ngay rendi mais gëléem kenn du ko ren boo ko rendee mu dem yoonam parce que sidit bi nga xam ne moo koy tax dee dafa ne yax yi ñoo ko wër boo rendee du yegg il faut nga ñëw ba xam fi bën bën boobu toll reykat yi ngeen xam ñu duggal foofa sidit boobu dagg mu door a dee mooy naxar naxar mooy loj ci olof waaw léegi nag dañoo boole yëpp di ko tuddee rendi waaye rendi mooy lépp lu dul gëléem dañ koy rendi amaa gëléem duñ ko rendi dañ koy loj. kon julli mhm. dara ci ah. julli gi sunna la rendi bi sunna la waaye julli ak rendi moo gën mais boo rendee te julli jiwoo it terewul am nga tabaski. waaw ah. décalage bi euh, Sénégal moom euh, décalage dafay yàgg parce que sénégalais yi dañoo gëm ne ñoom ñoo gën a dégg diine ji keneen ku koy dégg te kii ku gën a dégg mooy sëriñ si samay mbokk sëriñ soosu la ñuy déglu ba tax buñ leen ne nee màkka julli nañ tey ñi ngi jàkkaarloog moom ñi ngi wax seen seeni mbokk yi nekk aji màkka naa leen tey la tey lañ julli waaye ñoom suba la ñuy julli war parce que moo arrangé jigéen ñi fi ne jigéen ñaa ngi ci tailleur yi ñu ngi jënd yi ngi teg seen bopp yi ñu ngi euh, xeeñtu ñu ngi def leneen loo xam ne wax dëgg yàlla pour per de famille rek la ak lu lu feet gi feetu xale yi la ak jigéen ñi mag ñi ñoom ceena bi rek lañu féete. kon euh, docteur suñ déggee maanaam wax ji dafa mel ni. Hmm. li ñuy boole woon muy diine l'islam dañoo mujj teqali ko ci diine l'islam. Hmm. parce que adduna yëpp nañ ne yow moo arafa danañ déglu mbàkk. ba jant bi so mais dafa mel ni bu ñu xëyee dañ koy weddi duñ ànd ak moom ci julli mënuñoo àgg xam nga wax dafa ba dafa am dafay war a am valeur mënuñu wax ne weddi nañ parce que weddiwuñ yàlla weddiwuñ yonent weddiwuñ alxuraan weddiwuñ ne arafa démb waaye nag def nañ ko ci ñun ndax yàlla dafa indi lu mal variant yàlla daf ko indi ci alxuraan dégg nga mu ne la la yakuna laa xiyaama wa quudan wa ala junubihim ñii dañuy jullee taxaw ñii dañuy jullee toog ñii dañuy jullee tëdd seen wet waxul ñi tax ñuy ñi jullee seen wet weddi wu ñi jul ñi taxaw ñi nga xam ne mënuñoo jóg toog toog di julli ci chaise wala ci leneen weddi wu ñële wuute gi ci li sos lislaam la bokk moo tax lislaam ci boppam sax alquran am naasix ak mansuux am laay joo xam ne yàlla dafay santaane nangam ñu dem ba mu yàgg mu ne la ma leen santatuma leen ko laay ji abrogant la bañ leen njëkkoon sant abrogé la abrogé nañ ko bi ci gën a mooy weeru koor góor ñëpp dañoo rañaanoon dem njëkki ji jàkka ji jigéen ñi surtout jéeg ju ndaw ji yónnee ci dem ñu ci Aïcha ne ko waxal ñu yónni bi parce que ñun li ñu soxla suñ jëkkër yi ak li ci yàlla soxla du benn na jàll jël yëfam bàyyi ñu suñu yëf wax yu yonent bi yonent bi ne man lu yàlla wax rek la mooy jottali man du ma ci dara ñu dem ba benn bés laaye ji ñëw ne leen yàlla yëg na ni lu metti mi ngi leen doon daal yéen jeeg ju ndaw ji léegi nag yàlla dagaral na leen diggu weeru koor ngeen song seeni jabar kon nag laay ji ni mu ko waxee laa na laana baashiruhunna léegi nag song leen leen loolu wax yàlla doo xamee ñas song leen leen da dafa dafa woyefal la fe newoon hmm. waaw mais bu ñu gisee tey ci du weddi du weddi du euh, kii la maanaam euh, ak yombalal la parce que su fekkee woon ne ku royul ci bés bi wala naafiloo ci bés bi amuloo kon dañu wax ne weddi nañ ko ñuy def leen neex tey kon ñun mën nañu fexe fii ci senegal yéen borom xam-xam yi ngeen daje ba fexe ñu en tout cas bokk jullandoo tabaski euh, réew yi ci euh, réew yëpp ci àddina looloo fay xew mais du tere am na itam du senegal rek ñoo ñoo ñoo juyoo ak ñi ñu warta juyal te mooy Màkka léeg-léeg Maroc ñun lay àndal léeg-léeg euh, sultanat d'Oman mi ngi sës ak Arabie Saoudite ñu bokk ak ñun te duñ bokk ak ñële léeg-léeg Indonésie. mais Paris ñoom toujours Màkka la ñuy àndal. parce que boo xoolee discours yi tey ñi xutba boo xoolee nga siiwal ko ci Facebook bi YouTube hmm. dafa mel ni dafa am ñaari catégorie musulman yu nekk Sénégal parce que ñi julli tey dañ jàpp ne ñoo topp njàngaleem Seydina Muhammad ñeneen ñi nga xam ne ni julliwul kon waaw c'est-à-dire que nag dafa am benn catégorie boo xam ne wahabi yi ne ñooñu man mën naa wax ci kanam Sénégal yëpp ñooñu duñu jullit. muy wahabi yi du ñu jullit ils ne sont pas musulmans. fan nga teg ce que nit kenn mënta nekk jullit te bañ yonent bi te fésal ko amul benn wahaabi tey booy fayal ne ko kaa ñu dem Medina nga siyaare yonent bi te neew a yàlla tere ñoom dañoo taxaw wér ne képp ku siyaare yonent bi fa mu tëdd yéefar nga ba pare ñoom def nañu benn plan mën naa ne ko woon ci internet mi ngi ci boo xam ne dañuy war a toxal toxale yonent bi foo mu tëdd yóbbu ko ci bàq suul ko ci bàmmeel bu anonim kenn du xam ne moom la ñu di ko jéggati parce que nee nañ feeg defuñ loola julli ci jàkka ji sax du wér julli ci jàkka yonent bi feeg jëlewuñ ko fii ci tëdd du wér kuy jàngale contre yonent bi bañ yonent bi te loo Ahmed loo bind na ko ci téere mille pages nee na sénégalais yi euh, mënuñoo jàpp nee na duñ julli jumaa daf ko bind mbind laa wax mbind wax na ne sénégalais yi dañuy tëdd ak seen ndey moo ko bind noir sur blanc mi ngi ci internet demal ci internet du waxe Ameth Niass de te bi mu ko bindee yàgg na ci la amee doctorat ki ko jàngal Fawzan nee na ku siyaare yonent bi yéefar la mi ngi fa toog keroog daje nañ keroog daje nañ d'abord moom demoon na Medina pour complot boobu ñu war a complot pour génne yonent bi ci néegam bi mu tëddoon di këram moom lañ féetalee téye tànk yi bu ñu génne yonent bi moom Ahmed Lo mooy war a téye tànk yi pour génne ko ci jàkkaam ji dem suul ko ci benn kàmb boo xam ne kenn doo xam ne moo fa ne. est-ce que damay wax téere xam nga man waxuma ne diw moo wax. waaw waaw kay dama bëgg a wax ne. dama wax ne mag mu toll ni man. xanaa nekk ci soixante seize ans xanaa jombale naa sama bopp di di wax loo xam ne aw ma ci firnde li ma wax mbind la ku bëgg a jàng jàngal maa ngi ñaan d'abord wàll yi waxee wax yooyu yéen ñi nga xam ne téere mi ngi ci internet ngeen laay biir ni ñi traduire ko français tasaare ko ci Instagram ak Facebook ak yëpp ba nit ñi xam ne lii seen wax la ñoom du waxi Ameth Niass diine joo xam ne nag ah, mën ngaa wax ashhadu an laa ilaaha illallaah waaye yonent bi dañ koo sewal ba fa sew yem ji nga arafaat démb bi ñoom dañ ko wax dañ leen a aaye pour ñu jiite jumaay arafaat ji ka jiite waxaa bi dañ koo tere génne ko nee ki nga xam ne euh, dafa am ay doctorat di jàngale université di chefu euh, ligue islamique mondial kooku na jiite moo jiite tey mais dañ fa nekk di ko saaga ne yéefar la yowóot yàlla gëm ñoom ñoom fen wu ñaaw rek lañuy def. est dama ne euh, euh, euh, Diallo courant de pensée du lu ñu bind teg lu ñu bind teg ki bind teg ne Sénégalais yi te y a combien 16 millions ne 16 millions yëpp dañu tëddee seen i ndey di tëddee seen i di tëddee seeni doom. te duñu julli jumaa te xamuñu ñu jàppee xam nga ko dem na sax ba tuddaale na boppam no seulement moom mais ñoo ko jur nag loolu moom bu bu doon doy euh, affaire tontoog leeral kon man ma jàkkaaroon naa ko laaj ndax loolu ñaar ñu ko jur ndax ca lañ bokkam déet xam nga ne sunnit la mu ngi mel ni damay wax ne nekkul ci sartu nekk jigéen kenn tudd ma jigéen jigéen bu tuddoon Muhammad itam jigéen la tudd sunnit taxul nga nekk sunnit ñoom dañoo def loolu mbubboo ko ba ñuy gis ni eh ndeysaan sunnit ñoom ñoom sunna lañ topp sunna saay-saay sunna iblis sunna firawna sunna aboo jaal ñooy boobu sunna lañ topp eh, sunna si eh, sunna lii loo xam ne boo demee ci coiffeur bi mu dañ loolu mooy diine ci ay fini kese mu mel ni am na ko yónnee benn laaj muy wax ne. Hmm? comme ñooñu nga xam ne dañ bañ yónnante bi di ko saaga nekk ay yéeféer léegi jumaa yi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci Afrique rawatina suñu réew yi lan mooy àtteeb kon julli ci jumaa yooyu nga xam ne ñoom ñu ngi koy tabax daal. gis nga nag man fi nga may gis nii man lii may def nii alal taxul ma di ko def ndax duñ ma ci fay man du ma jël àddiya damay jox ñi amul waaye du ma jël seen xaalis. bo yow xam nga ci dara fii tey liñ jënd ci ay téeméeri xar di ko joxe di yónni ay nit ay kii maanaam xaalis yi jaar ci téléphone yi ak yeneen ak yeneen ñun photo yi buñ ko defee taalibe bu ñëwee duñ toog suuf ci kaw photo yi la ñuy toog xëy na nag bu feesee ba place amul d'accord waaye duñ leen toogloo ci suuf toog ñun suñu bopp ci kaw donc lii may wax jaamu yàlla laa ko def jaamu yàlla jotal nit ñi loo xam ne xamuñ ko parce que ñëpp waa bi yooyu dañoo layee dañoo contre lii nii lañu déedéet man waxuma loolu man li ma wax lu précis la lii nag ñoom mënuñoo weddi ne bindu ko parce que mi ngi ci internet bi jël sa kii bi génne ko génne ko génnal téere bi ci kii wane ko parce que non téere boo xam ne mi ngi circuler borom moo ko bind ñu jox ko ci doctorat ci xas waa Sénégal parce que ñi ngi koy jox xaalis rek xaalis bi rek la bañ ko joxoon xaalis bi amul dara amul sax welo bu war léegi bi ñu ko joxee xaalis mu mos climatiseur mos bureau géey nangam nangam ngelelee ngelelo loolu rek la. donc euh, ce que loo xam ne normal parce que amoon na ci te yàlla ci boppam wax na ci alquran bi moom mooy at ñi nga xam ne peut-être que ci interprétation dégguñu est-ce que tam du problème interprétation non sëriñ bi gis nga man bu ma du ma sosal nit d'abord am ma di ko sosal waaye nanga am recul journaliste bu ne yaa am fe yaa un écrit ou il est vrai ou c'est un faux Mohamed Lo na ne bindul na wax ne bindul téere bi bu nee bindul téere bi ñu ne ko kon baal ñoo ñun dañoo dañoo gis sa tur la kon beneen Ahmed Lo la ne bindu ko jeex na mais loo xam ne moo ko bind signé ko mu ne ci internet bi tasaaroo ñi wax ñëpp ne ñi wax loolu ñooy sunna man maa ngi nii toog fii bépp bi bu bëgg a dem siyaare Yonent bi ñëwal man naa daanaa fi jël ay avion ay avion di yóbbu nii ñu dem màkk ma jox leen ñu dem siyaare Yonent bi koo ko jox may la yàlla tere deelee ko gën docteur Ahmed Khalifa Niass dégg nañu itam ñi nga xam ne tey julli nañu. parce mm-hmm. ci li nga xamante ne mooy actualité bi euh, ñu ngi dëgmal ci élection législative gis nañu déjà li nga xamante ne am na fi ci wàllu manifestation euh, d'abord ñu laaj la sa point de vue. Mm-hmm. ci li nga xamante ne du ñu ne bees lu bees la. Mm-hmm. mais au moins bi mu fi amee yàgg na mooy concert casserole bi nga xam ne Ousmane Sonko di jiital Pastef bokk ci euh, conférence de leaders. de la coalition Yewwi Askan Wi du opposition bi oote na ko euh, première fois nee nañu réussir na deuxième fois am ñu ne xaw na am flop tuuti yow ban jàngat nga am ci concert casserole xam nga historiquement concert casserole mi ngi doon am depuis le Moyen Âge surtout li ko doon waral mooy ay famine nekkuloon à l'origine di manifestation politique. mais nit ñi ñoo amul lu ñu lekk nit ñi di dee ngir xiif bu guddee ñu nekk di tëgg cin yi pour ne cin yi dara neew ci loolu moo doon origine bi après ci temps moderne yi jamono ji nga xam ne Pinochet moo nekkoon euh, Chili moo nekkoon président ba gannaaw bu ñu reyee Allende donc ñu jël ko comme benn kii politique pour waaw waaw pour pour kii pour euh, waaw nu ko koy waxee teg yooyu def nañ ko fii euh, bon man li am solo mooy ñun fii dañoo am zaawiya jàkk fii ci biir wax dëgg ñaari bu mujj bi sax yàqaluñ julli mais ñaareel bi bu njëkk bi vraiment doonu yàqal julli ndax xam nga heure diggante huit heures huit heures et demi foofu la julli gee ñaani mi ak ñi naafi la ci lay nekk vraiment ñun ñu ngi nii dañu mujj aj gi julli gi ba parce que même bu ilimaan bi jàngee sax doo doo mën a dégg li muy li muy li muy jàng dégg li muy jàng ci la bokk ndax boo déggul faatiha yi ba mu jeex amuloo julli loolu ñoon ko côté diine la ñuy wax waaw. léegi lecture politique. Hmm. lecture hmm. non amul amul amul effet politique disons que euh, am na lu jiitu loolu ñun bi ñu sosee PDS avec Ablaye Wade xam nga lu mu créé woon julli mardi. waaw mosoo ko dégg de mosoo dégg loolu julli mardi moo jiitu dañ daan ànd ak Ablaye Wade taxaw fii euh, avenue Lamine Gueye ci fi tolloog Zawi Alaaji Malick tous les dix mardi à dix heures ñëw julli ñaari rakka Ablaye Wade ko seen euh, moo ko wax mi may dégg waaw de dama ne la lu ne dafa xam nga olof dañu ne nawet bu ne am na maam mënoo wax ne kenn dox ñu naan doomu aadama parce que amul bàyyi aadama doomu aadama rek moo am dégg nga lii bu amee am na lu ko jiite beneen forme moo doon julli mardi yow xamoon nga loolu. waaw mais xamuloo ne julli mardi am na man mii wax ak yow ci ñi doon ànd ak waa Wade ñuy julli mardi ci laa est-ce que ci contexte bu Sénégal dans ka man dama bëgg. Euh, Kande ñuy placer yi ñu ko war a placer. Sénégal li ñuy réagir dañuy bëlëf yi dañuy wax ba gannaaw ëllëg te waxuñ dara yëf yi dafa am nu ñu ko war a jëmale tey que ki nga xam ne mi ngi politique Sénégal dafa am noo xam ne noonu lay defee mais est-ce que c'est un acte politique que de taper sur une casserole wala de prier un mardi à une heure indue à un endroit indu ñun loolu mooy li nga xam ne moom la intelligence yi waroon a jóg ñu discuter ko mais l'intelligence et l'intelligentsia est enterrée sous les sous, sous le serment des insultes instrumentalisées. moo tax ñu laaj la sa nga am parce que. dama ne y a pas de lecture politique pour taper une casserole c'est pas un message politique. parce que contexte bi dafa xaw a wuute peut-être que Ousmane Sonko yàgg nañu am initiative marche interdiction yi xaw a ñu jàpp ne léegi kenn ku ne li la xam nga Ousmane Sonko du problème ndax yow xam nga ne Ousmane Sonko ñëw na fii xam nga ne Macky Sall ñëw na fii ñoom ñaar wuuteente wuuteente nañ wuute nañ ci place boo xam ne kii dafa toog fii benn bés ci benn heure jóg dem après keneen ki ñëw ci même endroit ci beneen mu toog fii ku ci ne ñoo ku ci ne wax ak man donc ku ci ne am naa ak yow ay relation waaw non la l'acte politique yéen journalistes yi defu leen seen liggéey xamul lu ngeen di doyee diplôme. waaye. dañuy question bi mooy est-ce que le fait bu demee ba soppi méthode di woote ay tëggu mbool est-ce que loolu man na am impact am na beneen acte politique bu ñëw après casserole yi. te boobu moo gën a am importance te mooy un vrai acte politique ki waa constituer une tournante te waxu leen ci déet yene journaliste waxu leen ko vous êtes là pour observer lan ngeen seetlu ci diggante bi ñaari fan yi lan moo fi xew déet yow ba dama ne yow bul ma wax waxeel nii yow waxeel yow laajal nu mu la neexee rek ma tontoo nu ma neex nga d'accord léegi waxal lan moo fi xew ci ñaari fan yi loo xam ne c'est un acte politique bisimilah maa ngi lay laaj ma ci loolu dinañ dem woote ji te waxoon nañ ne élection dafay am. dinañu ñëw ci discours Bignona bi nga xam ne mi ngi tourner toujours autour en tout cas ci problème ethnicisme bi mais. ñu euh, nga discours Bignona bi. waaw mais dama bëgg d'abord ñu ñu ñu jóge ci li nga xamante ne euh, ñenn ñi euh, maa ngi la koy contextualiser sànq ma ne la premier appel bi ñu bëri jàpp nañ ne sénégalais yi dañ cee aussi mais deuxième appel bi ñu jàpp ne xëy na am na tuuti li nga xam ne peut-être yi dañ cee xaw a bàyyeeku. ñu nga Sénégalais yéen ñu ruus nañu sax wax ne ñun journaliste lañ ndax yéen bu doon loolu journaliste di mel ñun ñu mës a jàng journalisme di ci am ay diplôme wala ñuy créer ay journaux jamais. d'accord parce que fait bi gën a am importance. dama ne de ban fait la. yow du bu ñu yoona du du du du bu du kastiloor yi. te am na. xaritu Macky Sall loolu xam nañu ban dayoo xam nañu nan bi may am dayo ci politique Abdoulaye Wade kenn xamu ko Abdou Diouf hmm. kenn ëpp tout cas impact de ji nga man sama première conférence de presse maa ngi ko def avenue Georges V en 19 août 1979 maa sama première interview ci àddina maa ngi ko def ak journal Le Monde journal Le Monde laa wax de. dafa yàgg na. journal Le Monde yàgg na yàggul du wax waxu sénégalais waxu africain maanaam ci seen dund téeméeri at amaguñu fukki sénégalais yoo xam ne tuddoogum nañ seen tur ci journal Le Monde. d'accord ci interdiction yi. am ñenn ci leader politique yi dañ leen arrêté mujjee leen libéré. Hmm. Euh, li nga xamante ne euh, conseil constitutionnel euh, wax na ko ci wàllum élection législative yi ak li nga xamante ne loolu moo àndi loolu yëpp tey ñu daal di ne Yewwi Askan Wi seen liste majoritaire bi du dem. proportionnel bi mooy dem ñu ne list benn Bokk Yaakaar bi itam seen majorité bi mooy dem bee du dem yow ban ban ban jàngat nga ci def waaw kooku am na benn terme juridique bu ñu tuddee licipendance mooy la loo xam ne dañ ko évoqué ci niveau ñaari cours yu bokkul te muy benn affaire bi loolu mooy licipendance affaire bi dafa niru licipendance maanaam loo xam ne ñi ngi ko posé ci bayaalu politique bi ñii def di dindi ci wàllu politique di ci wax ñu jox ko justice justice wax ci mais yaakaar naa ne justice nim ko liiree mooy yéen comme noonu la ku ci ne danañuy def benn firiñ ci ko ci say létt ba yéen ñëpp da ngeen di obligé dem léttu jiwaat am na beneen recours boo xam ne xaw ma procédure nangu nañ ko wala déet te mooy le rabat de l'arrêt arrêt bi nga xam ne moom le conseil constitutionnel def par conseil constitutionnel ci jamono benn chambre la woon chambre constitutionnelle ci biir cour suprême lii ma lay wax bokk naa ci ñi ko dox ci jamonoy Abdou Diouf booba dañoo bëgg liquider Air Afrique te mu am ay problème pour ñu fay liggéeykat yi te euh, cour suprême xaw ma xawoon ba jël ci benn jël ci benn décision te ko doon ndox pour compte Abdou juuf ci ko ci kii euh, cour suprême ci la ñu créé rabat d'arrêt décision ba jëloon amatul chambre bu gën a kawe euh, cour suprême pour jëlaat ko dindi loolu moom benn moom rek moo fi mooy li gën a koy moo jël décision boobu ñu daal di indi ci tëral ko ci beneen jurisprudence bu yàgg bu amoon France ñu daal di créer la possibilité di la di rabat arrêt bi nga xam ne cour bi gën a kawee jëli na ko daf koy rabattre mu mel ni dafa nekk cour d'appel buy vérifier bopp d'ailleurs gis nga ko bon mais l'essentiel et que des na ay bunt léegi continuer leen comme yéen da ngeen a bëgg benn ACD abécédaire boo xam ne da ngay touché bi touché bi touché bi ba ngeen yegg fi mu ne. ok. Euh, euh, yow euh, docteur. souvent gis nañ ne bii booy wax ci Sonko dafay xaw a am tuuti retenue bi ngay am da ngay sama doom la ñëw na seet si ma. waaw am na ñu posé la li nga xam ne. sëriñ bi Kande dé déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet affaire ragal moom boo koy wax doo jaar ci mbedd mi mbedd mi mënees ko ragal néew fi looy ragal non non il faut que que de defal nànk déedéet déedéet tey que Ousmane Sonko néew ju doole la parce que du sant gendarme mu def du sant policier mu def. du sant euh, procureur mu def kon pour man néew yu doole la. mais noonu nga mel ak Macky Sall même Macky Sall tamit. déedéet déedéet déedéet dama ne dama ne déedéet Macky Sall borom doole la. Euh, mën na mën na recevoir ay coups yoo xam ne xajul ci Ousmane Sonko. ah moo waral nga am attitude boobu. waaw euh, gis nga Kandé Kandé. du du kër gu nekk nga mën a romb ne kër gi Sonko da fii ñëw da fi ñëw na fi ñëwatu fi xanaa su fekkee ne Sonko am na ay nit ñu ko jox bopp jox ko baat xanaa kon fa muy dem ñoom la fay demal walla kon su fekkee ne ñëw na fi ñëwati fii est-ce que mën maa koy mën mën naa ko jàpp ci ci buum xëcc mu ñëw waaw kon nag loolu man it dama koy war a bàyyi bàyyil dayo nit ki ara yàlla wax na ci alquran ne hal jazaawul ihsaani illa ihsaan mais mais yow porteur nga xam nañ ne ragaloo sa de position Ousmane Sonko xanaa kon moom lu mu def bu politique ba tey ba léegi lu muy def ci politique yëpp lépp nga ànd yow ànd nga ci xam nga ma man du ma man du ma la jox man du ma la jox suma point de vue ci Ousmane Sonko mais yàgg naa ko exprimer nee naa politiquement Macky Sall laa àndal tey moom laa àndal ëllëg politiquement je vote Macky Sall xanaa loolu amul werante loolu garaar yi sax xam nañ ko waaw. mais waaye defal naa ko. c'est parce que yàgg nga waaw waaw le critique le non non non defe naa ko le critique dama ne parce que donc eh, man man du ma man mii ngay gis du ma émettre un jugement de valeur ci personne Ousmane Sonko ak ki xalaatam ndax kon maa ngi koy sot te moom mi ngi néew doole yow da fekk ku njoñ nga ñëw dóor wala nga comptable luñ lu tax comptable woo ko noo koy ragal te mu ñu ko joñ tëj ko téye ko. kon da doole xañ néew ju doole ji dama ko cee jiitu moom duggagul kaso man dugg naa kaso juróom-ñaari yoon pour mes opinions taal naa fii drapeau France ci kanam Mitterrand Mitterrand di jooy weq xat président nga France nga nële sukkal ma mi ngi nii jox ko jox ko ko ko nit ñi Sarkozy mi sukkal def ma nii. comme ni murid yi defal seen sëriñ si waaye loolu defal ndànk defal ndànk dama ne la lii muy def maako ko ca jiitu yi nga Cheikh Omar jaañ euh, moom démb oo naa ko jotuma ko ma bàyyi ko benn euh, benn audio dama kone foofu nga demoon ca kaso ba maa la fa jiitu maak ak sa marque Sidi Lamine dem nañ fa demati fa demaat fa kon nag boo fa demee ruq yooyu nga jaar yëpp ñun jaar nañ fa xam nañ fa waaw waaye nag ci yoon yi la bokk continuer defal naa nga man dama bëgg nga xam ne bul séentu ci man ma nekk koo xam ne damay euh, nekk sama gaal nekk sama poto ndox fekk un noyé ma tànk ñu ndox mi di ko ko sotti wax dëgg sama soxor nag du yegg foofu waaw man daal moom. Hmm? aw ma prudence. dem na Ziguinchor. de wax lu mu fa wax dëgg nga ko xarit Macky Sall sa xarit la Macky Sall ngay àndal ci politique Ousmane Sonko nee na président Macky Sall buggul waa Casamance da leen di buntu xatal. waaw dama ne dama lay laaj ci sa xalaat yow yow ci sa xalaat yow ci sa xalaat yow maa ngi Macky man man ak man ak Ousmane Sonko kan moo gën a nekk Casamance. Ah, nee nga ma am nga waxuma am naa ay médias dama ne dama lay laaj. est-ce que moo ma gën a nekk Casamance wala maa gën a nekk Casamance damay laajte nee ma moo la gën a nekk Casamance parce que loolu moo gën a évident ah ko waxal loolu. ah kay ah kay xanaa xamoo ne xam nga sant bi yëpp ci sant Joolaa nga mooy hmm. ñaasi. waaw xam nga boo nee ñaasi rek ñas dugg na hmm. ñaasi. kon ci loolu du ci rek bari na. non fii appartement fii ci gannaaw waa waagan fii ci gannaaw nu mu tudd mu sama kër dafa am fii toute une zone boo xam ne Casamance la du léegi mën na ñaar fukki at mais bari na ñuy ñaawlu en tout cas déclaration de Bignona boobu euh, nee nañu wax waasoo la wax ne président de la république bëggul xeet ci am réew c'est pas normal est-ce que jàngat boobu nga am que lecture boobu nga am est-ce que boobu nga am man daal li nga xam ne xam naa ko MFD MFDC ba ma lakkee drapeau bi le 18 mai 82 ñu tee ñu fa maak sama rakk Sidi Lamine ñu nekk foofu ca kaso ba décembre ci lañ demee woon ci bois bi décembre 82 ñu jàpp leen andi leen man maag Labé Diambacoune ñoo bokkoon benn chambre Nkrumah Sané ak Sidi Badji Euh, euh, ña mbooleem fondateur u MFDC yi seen première réunion ci néegu néeg bi ma bokkoon ak jamakun dama doon génn mu ne moon a déet bul ne yow ci ñun nga bokk ma toog ba réunion ba pare maaleen doon nourrir waawaw waaw nuriir ci biir prison bi en décembre 82 maa wax daayira yi da leen togg di indi ñuy togg di indi ñu leen jox seeni démarche li ñu doon revendiquer. li ñu doon revendiquer mën nañ ci ñëw plus tard mais déjà en tant que doomu aadama ndax doomu aadama bu ñu sempee ca ay toolam ak i palaasam ak i kiyam indi ko xëy na bu amee ay mbokk gisagu leen déggagu leen mu xiif te lekk ga ñuy joxe ca kii ba loolu poson la ko ko lekk de man yàlla may ma ma mën a am daayira yi togg ay ñam indil ma mu bokk ak ñoom te mieux que ça maa ngeeg lettre boo xam ne Labi Diamecoune moo ko moo ko bind en tant que conseil spécial du premier du président des MFDC. léegi ban euh, conseil nga am ci certains acteurs politiques yi nga xam ne ñu ngi utiliser euh, cette question d' appartenance pour mun a contre attaquer euh, koo xam ne peut être ay principe lay wax. xam nga. loolu du lu ñuy émettre point de vue moom wax na wax ji mu wax xam na li tax mu wax ko peut-être que am na lu ko justifier peut-être que juum na aussi nit day juum nit di man taxaw di julli mu yàgg rek mu jag mu mu mu juum ñu naan ko subhanallah su fekkee na bëgg ma bu bu dee da ngaa bëgg ma dal ci Ousmane Sonko dama ne xam nga kañ laay mën a dal ci Ousmane Sonko. pas xam nañ ne sa wax saa yoo waxee dafay am écho. waaw réew mi ñoo ko bokk. Hmm. ab état de droit la. Hmm. la boo xam ne dañuy dugg ci cohésion boo xam ne dafa tous branche yëpp religieux. Hmm. ethnique ainsi de suite. bu nit taxawee ne président de la république. buggul ab benn dëkk ci dëkk boobu buggul xeet wi loolu yow war nga ci addu wax ne lii c'est pas normal par exemple waaw mën naa ci mën naa ci àddu gannaaw bu ci président àddoo wala porte parole moom dafa am porte parole à la présidence am porte parole di de la PR am porte parole de la de la euh, coalition man yooyu du ma ci benn man ma war a transformer son bopp en ridicule porte parole qui n'a pas la parole duma ko def. ci question bi mooy que peut-être victimiser wala am déet mais de façon générale mooy les acteurs politiques euh, tey euh, par exemple bu ñu déggee Ousmane Sonko di wax au lieu de répondre directement à ce qu'il dit ñu ngi andi ay waxi xeet est-ce que discours politique bi gis nga ci élégance ci ni ñuy doxalee. waaw ñun suñ jamono dañ daan wax ne c'est de bonne guerre. waaw léegi jamono bii nag. waaw ah, c'est de bonne guerre. c'est de bonne guerre que ñu. c'est de bonne guerre que moom moo wax li mu. c'est de bon guerre que moom mu wax li nga xam ne yaakaar na ne bu ko waxee dana def tilt ñoom it am nañu droit tiltal ko moom itam mu am mu def tilt. d'accord docteur mu mel nii euh, kii yónnee na benn laaj daanaka si yow la ko jëmale waaye dafa mel ni laalaat nañu. Hmm. parce que nee na bu ñu xoolee lu war a mat ay at a ngi nii dafa mel ni Sénégal politiciens yi dañ koo téye ci diggante Ousmane Sonko président Macky Sall te dem a dem ba nga xam ne fàtte nañ sax liy jafe-jafe réew mi. mu ne loolu xereñte gu politiciens yi am la wala lan moo xew bañ nangu lépp téye ko ñoom la ñuy xëy wax guddi moom la ñuy wax ba fàtte yéen mu ne loolu ban solution lañ mën a am ba génn ci loolu. loolu na ko laaj ñeneen ñi mu wax léegi rek ñaari parti yooyu fi nekk. ñaari côté na na ko laaj ñooñu mais man li ma bëggoon ñu dugg ci ñu dugg ci pour de bon tey ka man nag ji nga ma ni du ma répondre aux questions futiles. Euh, bu dee viser les politiciens. qui font et défend les choses mais na leen ko laaj. décce décce ngi fi. waaw ah, xam nga décce barki démb rek d'ailleurs ma wax la benn précision boo xam ne moo ko doo ko xam am na jour boo xam ne Ousmane Sonko moom bi fi ñëwee moom rek moo fi ñëw ñu ànd dem fee Casamance foofu la ñu doon waxtaanee waxtaan nañ fa lu jógee deux heures de temps nga bi ñu génnee xam nga comme la doon xaar fekk muy xaar fii fii xam nga kan la décce fii. Sonko day génn doo ci di dugg te Macky day ñëw sama baay nag daf ma ne woon euh, kilifa xam nga kilifa mooy garabu pénc ma ne ko ah mu ne ma garabu penc mbooloo mu ñëw waxtaan ba dem ñeneen ñi ñëw du leen wax ñi fi nekkoon lan lañ wax. beneen bi kii daf see laaj hmm? gis na ne. Euh, muy président so muy président Macky Sall. ak hmm. Ousmane Sonko ak hmm. ñeneen yi nga xam ne yëpp. Hmm. ñu ngi yóotu mbir mi. ñoom ñëpp dafa mel ne sa kër sale bi yoon lañ ko def. dañ fiy ñëw di fiy taataan ay xalaat est-ce que jotul. yow nga bañ a xaar kenn nga jéem leen a dajale ngir réew mi bolokaas bi mu nekk. mu mën fi jóge. waaw loolu lay bu bu ma ko yàlla jaglayle dana am mais nag itam wax dëgg yàlla loolu du lu ñuy euh, du lu ñuy man daal waxoon naa depuis bi fi Ousmane Sonko njëkkee ñëw ne maa ngi séentu bés bi nga xam ne ñoom ñaar danañ fi bokk toog te naan café wala attaaye wala sexew ndox mu sedd njarum euh, soow euh, waxtaan mais loolu sax am na lu ko gën a avancé lu am parce que à partir de de hier yaa a un bon canal une sorte de téléphone rouge qui fait passer le message. mooy daje président bu Guinée Bissau. Hmm? mais pas seulement. Ah, na lenn lu que ñun mbooleem ku nekk fii di politique xam nga ne depuis quarante ans Guinée Bissau mooy gérer MFDC. Hmm. ñoom seen chef yooyu ñuy wax yëpp ay Salif Sadio xam nga Salif Sadio moo maami sama doom yi Kombe saajo mi bokk ak moom benn baay moo jur ki jur seen yaay ñoom ma seen maam la mais ñooñu boo leen dee demal Bissau fa ne te ma Séné Bissau ku naqari Sénégal du fa ne comprendre ga donc moom léegi man je suis beaucoup plus tranquille gannaaw boo xamee ne mbaalo jël na initiative boobu gannaaw bu mu ci waxee ak président Macky donc au moins on a un gérant pour une gestion on l'avait pas. ban initiative du du ci gisee bi nga xam ne euh, Sonko xosal na da nga jàpp ne dafa am lu nekk ci ginnaaw. gis nga àddina bi ñaara fi ne politique gis xam la diine mos xam la ñaar ñaara yor ko fi ne su ne moo boo mosee doo xam. ak boo gisee doo xam nekkatoo ci affaire bi waaye dama ne aujourd'hui le gérant de la Casamance pour le Sénégal est entré en gestion jusqu'à preuve du contraire. maanaam moom mën na dox ba diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mu loolu loolu bu doon maay journaliste bi nga doon. man dama koy poser question bind sama article dem sama éditorial mais su fekkee ne man damay wax ak yow ba di lay wax ba yow nga may wax loolu li may wax kon yow nekkatoo journaliste déedéet déedéet déedéet kaay ma wax la déet xam nga nag déet déet kaay ma wax la nag xam nga nag lu politique uute uute ak nappam jën <laughs> mooy politique bu nappee du waas Senghor bañ ko ko waxee dafa ne jën fañ ko nappee duñ ko fa waasee du ma waas jën yii de bàyyi naa ko jigéen ñi déet looy nga bëgg itam bul ma waas loo jën du sama wàll man napp naa ko indi naa ko rek boo bëggee waas waasal waa d'accord mais dama ne da nga ko gis comme sénégalais yëpp xamoo woon ngi ci tànk yooyu kan ci euh, kooku de man ma ma ne ji nga kooku bi ma koy xam mbërëm làmb la te day ñëw fii ci kër gi te ànd naa moom lii bi ba tàyyi ak yeneen ak yeneen. xam nga ni mi ngi ci tànk gisante ak Ousmane Sonko. bëri néew na luy luy am ci réew mi téyeguma ko juste avant wala aussitôt après. bon beneen lecture bi ci am parce que ñenn ñi dañu jàpp ne bi ñu nekkee ci présidentielle bu 2019 bi gis nañu président Abdoulaye Wade dem Conakry gisante ak président bi fa nekk finalement amul consigne de vote bii patam ñu ngi dem ci élection législative yi. Ousmane Sonko du bokk peut-être que ñi muy àndal nekk ci liste proportionnelle bi day bokk ça veut dire que est-ce que nekkul euh, peut-être deal politique li ñu fi yàgg a ci tànk yooyu la nekk. Euh, man mën naa wax ne damay regretter bi may nekk euh, en plein dans la politique boobu Macky Sall nekk ko fi parce que moom il joue un jeu intelligent. boo réagiree bêtement dóor na la bu yàgg ba dem yoonam mu ko waaw moom il joue intelligent yow nag boo fi nekk ni hohoho mbohoo dee nga son jeu est un jeu qui est des euh, des grands rois parce que affaire bi dafa am nuñ koy doxale gis nga euh, jaabal fas ak julli mënta ànd benn rek nga cay def moom affaire bi daf ko jox ak xam demul ne kenn ñaanal ma ma nekk lii wala may ma ma nekk lii wala ànd ak man ma nekk nii te itam ñi nga xam ne songoo nañoo moom daanu nañ te ko actuellement duggal na parce que newoon naa ba nga xamee ne euh, Sonko gagné na Casamance mooy léegi il est affecté à la périphérie numéro deux actuellement il a un fichier chez le gestionnaire de la Casamance lii c'est un discours politique qu'on doit expliquer en dix heures de temps waaw mais ñaati baat yi rek doy na ji nga fi mu nekk nii bu dee sonko la ji nga màgg fi ne bu tëddee day nelaw soxlool somnifère buy tëdd nelaw même kii waa Jafalaa ñu ngi yónnee benn laaj di wax ne dañ gis ne Sonko yoonu mujj yi mu santaane ne gaa yi yëngatu 30 minutes. mu mel ni bi mu ko essayé doxul. est-ce que du loolu moo tax sax mu delluwaat Casamance ba discours mu mu mujj bi mu fa yëkkati. pour gars yi gën koo kii yaatal. man mi nga xam ne jaar naa ci politique. politique boo ci nekkee. di xeex. su fekkee ne basaas nga yore basaas mooy mbuusam politicien. boo xam ne dafa def ay fête boo génnee benn na fekk nga denc junni waaye bu dee benn rek nga am fett ko làmb jot jotoo dara pare nga war na lu gaa ñi génne nga génne beneen te booy génne xalaat nga benn ñuy war a génne ñoom ji nga nag position boobu nga xam ne man buggoon naa ko ko am ci opposition bi mais loolu Macky Sall moo ko am moom mooy réagir calculer say coût le coût bi mu am na xam nga Macky Sall kum ko nga ne mën naa koo dendale ak moom mooy góor guñ daan wax Baba si moo nekkoon champion d'Afrique ci damier dañ daan toog lu ma téeméeri damier kat ñu def seen table mu wër moom kenn mu ñëw avance la benn pion jàll avance ki benn pion ba wër ba kenn ku ci ne am nga temps xool nanga ngay réagir nga jël sa pion avancé mu ñëw mu def nii def nii dans leen ñoom ñëpp tous les cent sur le, le plan politique Macky Sall est le bab Babassi euh, des des des des des dameurs du vingt et unième siècle. mais est-ce que tam du parce que moom moo yore euh, li nga xamante ne mooy pouvoir bi. parce que bu mu jëlee nguur bi ba léegi bu ñu de rappeler un peu ci ni muy demee élection toujours 2014 euh, bi. Piwaar moo yore oto rek ji nga oto. ñi ci bari dañoo jàpp ne. waaw d' accord loi bi accord naa ci li nga wax. parce que 2014 dafa ñëw andi acte 3 bi moo waral ñu dem élection locale mu xaw ci am doole ñu dem 2016 nar a dem ci législative 2017 yi am référendum ci diggante bi ñu nar a dem présidentielle 2019 mu jaar ci code électoral bi itam. am ñoo xam ne duñ ci bokk am aussi parrainage bi ñu nar a dem ci élection euh, deux mille vingt deux législative yi cela veut dire que Macky Sall euh, président de la République du Sénégal dafay tànn ña muy bëreel. mën naa nekk mais kooku détail la affaire bi tant que yaa ngi ko yóbbu ci détail bi tu n'as rien compris et les gens ne comprendront rien à tes questions qui ne mènent rien il faut nga comprendre lu gën a profond que loolu. waa li gën a profond loolu mooy <coughs> Macky Sall c'est un architecte qui a tout prévu dans le bâtiment alors que il n'y a rien il n'y a que du vent maanaam dara newu fi benn kii la mooy bin dessin bi bunti yeeg tapis yeeg kii yeeg karo yeeg couleur yëpp moo koy defar te fekk dara xewagul buy consevoir kër gi kër gi amagul kër gi bu amee nam ko dessiné noonu lay demee ji nga ji nga ji nga ba muy dessiné ni muy doxalee pouvoir boo il était encore à l'école des ingénieurs loolu la bi mu demee Petrosen dañ ko faa sànniwoon pour mu jàng journal moom mu jàng archive soo ni mu maîtriser le dossier de l'énergie c'est pas c'est par qu'il l'a connu avant le siège du président de la République man dama bëgg d'accord na sax nañu wax Macky Sall lu leen lu neex waaye na ko ko wax mais nañu reconnaître une chose mooy Macky Sall politiquement n'est pas petit. il n'est pas petit président Macky Sall xarit nga koy wax souvent euh, yow jamono mooy sama xarit. ma di ko wax mais kaay ma wax la benn affaire. président yi fi jaar. ñoo ko ñoo gën ci man. waaw defe naa ñoo ko gën ci man mais moom mais moom ci li xalaat moo gën ci Sénégal. dinañ ñëw ci loolu parce que ci wàllum diplomatie quand même xam na loo xam ne président Abdoulaye Wade euh, def na ko ak yow ñu jeexalee ko juste ci wàllum élection yi d' accord nga tey ñu dem élection législative. sans koo yaa ngi question bu baax pourtant ci loolu. Mm. Euh, moom docteur euh, xaritu Macky Sall dafay wax lu bëri. Mm. dañ koy répété foo toog. moom it daf koy wax ah daf koy wax moom it nag attention maa koy sama xarit taxul maa ki di sa xarit waaye sama mooy sama xarit bi wax ne maay xaritam. li may ñëw nii mën na la man jëriñ eh, jamono yi yow yaa fi nekkoon monsieur relation bi nga amoon hmm. eh, xam naa ne partenaire yu bëri hmm. eh, corniche bi am nga ci wàll. buntu kër gi buntu kër gi rek. doomu buntu kër laa commencé. pour ñu ñëw ci réew mi gis nañ ne président Macky Sall defu la sax ministre conseiller pourtant sa xarit la da koy wax yow da nga koy wax est-ce que jotul tey relation yooyu nga xam ne am nga ko au niveau mondial euh, le président de la taf la ci wetam ngeen redynamiser waat entre le Sénégal et les pays du ce que man nag wax dëgg yàlla je n'ai jamais euh, souhaité être le vieux gâteau gâteau du gouvernement ou du palais. mais quand même war na mosuma essayé mosuma bëgg nekk màggat mi nga xam ne mi ngi topp ci xale yi nga xam ne ay morom yi sëtam lañ. di ko kor korkoronteeg ñoom ak di rawanteeg ñoom di daanu ñu naan ko papa xajal ñu non non non. am na ñoo xam ne bu yàggul lañ. mën na la def ambassadeur quand même yóbbu la ci dëkk bi. non non non non non l'âge de la retraite ans déedéet gis nit ki da ngay wax sa bopp dëgg. man fi mu ne nii. loolu sax moo ko waxee xam naa ne Macky ñemee noonu la ne même xam nga Macky ñemee moo nommé. te nga war ko mën a andil euh, euh, du loolu rek du loolu rek xam na ñun xamante dañ bu yàgg xam na ne mën na ma oo ma nanga nanga mën ne ko noonu san ma bugguma demuma demuma surtout d'accord dinañ ñëw ci loolu dellu ci li nga xamante ne euh, dans le cadre en tout cas la diplomatie mais ñu ñu ñu ñu tenk tuuti ci li nga xam ne mooy la tenue des législatives hmm. jàpp nga ne tey yoon la ñu dem élection législative sans ka nga xamante ne moom moo nekkoon troisième présidentielle 2019 mm-hmm. te ñu jàppee ni ñoom ñooy la la en tout cas opposition bi gën a représentative li mën a mën a wax mooy comme na xoon naa ko ci commencement man am na détails yoo xam ne du ma ko gérer waaye li wóor te wóor mooy je vote aujourd'hui demain après demain Même s'il se présente en 2052, si je suis là, je voterai Macky. Je suis sûr de ne pas la là. crédibilité élection yi ñu ne bon ñi nga xam ne ñoo ci waroon bokk bokk ñu ci. est-ce que tam loolu du du dindi tuuti charme bi nga xam ne su gañ après dina wax ne ne gañ naa au moins. peut-être que les jeux ne sont pas encore faits. peut-être que la gestion. Bissau Guinée est ce que am na mi wax wax diplomate est ce que xam nga leen na est ce que xam nga ne Guinée Bissau demandé nañu officiellement à être une région du Sénégal xam nga lool waaw. ma ko wax. de de par la voix de de de kii euh, seen président bi ñu leen deewoon nu mu tuuti. pe pere nu mu tuuti. demandé nañ ko yaa des documents officiels aujourd'hui aux affaires étrangères am nga fa ay relations demal ñu bi la lilsio Guinée Bissau am nañu une proposition officielle pour organiser un référendum en Guinée Bissau pour que la Guinée Bissau devienne une région du Sénégal te loolu moo tax ñuy décourager <coughs> MFDC ne leen yéen ngeen bëgg a génn ñun ñu ngi bëgg a dugg waaw loolu la loolu la. pour yow euh, président bi fa nekk fu ci tànk yooyu waxuma ne ci tànk yooyu lu ko jiitu la. looloo tax waaye da waaye loolu defal defal ndànk rek. parce que ni ñi lay déglu il faut ñoom itam ñu ñu am lu ñu comprendre c'est-à-dire que Guinée-Bissau mënula am ci ay archives am ne moom micro état lay doon comme Gambie xam nga le micro état am na léegi ci sur le plan diplomatique ñu wax ne un pays boo xam ne amagul deux cent deux cent millions d'habitants et au moins un million de kilomètre carrés de superficie matul pays du réew waaw loolu la loolu tax gars yi nanguwuñu monnaie bi bi nga xam ne Nigéria moo koy yore c'est que créer euh, monnaie bu ñuy wax nu ñu ko dootee. éco créer ko c'est donner le pouvoir euh, économique et financier en Afrique de l'Ouest au Nigeria ñoom rek ils sont à sel seuls ils deux cent millions ñun ñu ñu naan seize millions lañ bu ñu boolee Gambie ak Mauritanie yeeg ñaari Guinée ak Mali yëpp duñu yegg trente millions il faut ñu dem ba Niger duñ mot sax cinquante millions c'est ridicule dégg nga loolu la mbir mi noonu la demee docteur Ahmed Khalifa Niass dañ ñu may rek ñëw dalal suñu concert bi euh, Fatimata Coulibaly nekk Leral TV mhm. ñu ngi dalal ci waxtaan bi mhm, maa ngi leen di nuyu di leen ziar d'abord di euh, nuyu docteur Ahmed Khalifa Niass di kilifa si Sénégal ku nekk ràññeekle ko di nuyu également sama euh, confrère yi ma fi fekk di représenter Leral TV di kontaan aussi ci invitation d'accord ko diñ ak sànq yaa ngi doon wax na ne même Macky bu présenté wu président de la république pour la être en tout cas laajte waatu mandat ba cinquante euh, di nga ko votel ça veut dire que non limitation des mandats daal yow moo la gën a hmm, c'est la règle mondiale boo àddina bi il n'y trois pour cent des pays qui la limitation des mandats te itam man am na foo xam ne man ak Barthélemy Dias ñoo fa bokk lu ñu xalaat. mooy avant élection yi moom nee na Macky a le droit de se présenter en deux mille vingt quatre mais deuxième mandat rek lay doon en tout cas je partage ce point de vue. deuxième mandat non non non non je dis ànd naa ci loolu ak li Barthélemy Dias wax. loolu moo wax ma ne déggee naa gisee ko noonu. li mais xam nga parce que nag wax dëgg yàlla xam nga daal les règles même de la loi il y a des xam nga loolu il y a des jot xam nga première infraction bi nga xam ne code Napoléon bi nga xam ne moo mujj nekk suñu code pénal bi xam nga lan la sifflet. boo ne par rek mën nañ laa jàpp tëj par fi la commencé est-ce que c'est pas une règle idiote c'est une règle idiote au Sénégal euh, on reconnaît un mariage à cinq où l'invariable est du genre A le variable et du genre B. Est-ce que c'est pas une règle idiote C'est une règle bu ñu naree euh, wax ni li nga xam ne moo fi amoon 2011 2012 moo waral euh, président Macky Sall. bi mu la bëgg laaj euh, même bu dee kii dañuy inverser régle bi. peuple sénégalais bii nga xam ne moom mooy def lu ko neex te du ko ne kenn du ne du ko ne lu tax buñ ko joxee euh, président Macky Sall ne ko cinquième mandat mu woteel ko est-ce que dañ koy non non non yow peuple bi woteel bi nga ko woteel normalul parce que warul def cinquième mandat c'est le peuple loolu rek la loolu dafa rey dafa rey règle boobu moo la souveraineté souveraineté du peuple et limiter le peuple et ligoter. D'accord, mais docteur, est-ce que vous conviendrez avec nous que euh, peuple bi ci élection yi passé peut-être wane nañu beneen xar kanam bu bokk ak ci ñu wane woon en 2012 bi ñu président Abdoulaye Wade wane nañu beneen xarkanam ci cassure bi ñu bëgg. ci mbirum euh, li ñuy woowee ay état dictatorial maanaam toog fii di di di di ay candidature yu dul jeex ak ci yi nga xamante ni la ñu jëm itam est-ce que tamit génn yi amoon mars bi passé ak yi nga xamante ni moo am ci jamono yu weesu wanewul peut-être que ni peuple bi ci jëmmi boppam ñoom ñi yor seeni euh, kàddu doyal nañu sëkk même su fekkente ni président Macky Sall bu voté bu nekkaatee euh, euh, candidat yow cinquante mille wax naa ko ba pare fekk nga ma wax ko mais li ma la boo wax soxna si. mooy amaana ki ma wax ne mooy peuple bi ak yow ki nga wax mooy peuple bi du benn amaana yu juróom-ñaari nit ñu agité boo leen gisee nga yee peuple sénégalais bi kay fekk doolu du peuple bi ah, ah peuple bi mooy ñi nga xam ne ñii fi nekkoon ñoo leen fi def te ñi fi jógee ñoo leen fi dindi. est-ce que peuple sénégalais bi moo fi dindi Abdou Diouf wala dindiwu ko fi moo ko fi dindi est-ce que peuple sénégalais bi moo fi dindi Ablaye Wade wala dindiwu ko fi moo ko fi dindi est-ce que peuple sénégalais bi moo fi def Macky Sall wala defu ko fi moo ko fi def moo fi defoon Ablaye Wade moo fi defoon Abdou Diouf mais peuple sénégalais boobu buñ ko ligoté. te loolu élection rek moo koy jeex na mais dafay nekk dafay nekk. euh, un faux argument que ñu viser le nombre du mandat le, le nombre de, ma, de mandats ne signifie rien sinon ligoter la, la, possibilité pour le peuple sénégalais de s'exprimer et de dire non je ne veux pas de toi mm-hmm. tu veux un quatrième mandat je veux pas mm-hmm. mais le veut donner à quelqu'un mi ngi mel ni tey man je suis fort clos parce que j'ai plus de soixante-quinze ans je peux plus me présenter pour les présidentielles mais loolu buñ ko dindi woon man j'aimerais bien me trouver en face de Macky comme nag je peux pas me me trouver devant lui je préfère voter pour lui parce que je sais que je pense qu'il est meilleur pour le Sénégal. est-ce que élégance hmm? euh, euh, la République sa monte moom wax na fu ne mandat bi ah, da nga foog loolu yow rek yaa ko dégg. mais wax na ko. ne est-ce que loolu bi mu ko waxee da nga foog ne yow rek dégg. ñëpp dégg nañu ko. waaw mais est-ce que loolu gannaaw bu mu amee. gannaaw bu mu amee ba ñu dégg ko. ñun ba pare ñu ne danañ ko woteel man ma ne danaa ko woteel yow nga ne doo ma ko woteel kon woteel ma wote rek bu gañee ma tàccu. ko xaar moom taxaw ah, kon nag la yow la lu toll ni maire Dakar daal ngay weddi ay waxam na Barthélemy Dias ah loolu la di. ci interprétation. non non mooy monsieur rek Seydina mooy monsieur. monsieur Barthélemy Dias. mais la parole dama ne li Barthélemy Dias wax ay dëgg la wala ay kàcc la. de waxuma loolu mais <coughs> d'accord mais mais c'est le maire choisi par les Sénégalais. à Dakar. d'accord waaye de il est le même Barthélemy oui il a changé il waaye dama ne li mu wax mais li mu wax c'est un point de vue tout à fait respectable. mais il est respectable Barthélemy ki doon diw mais président de la République institution la bi wax. Mhm. bi wax ci en euh, terme de mandat ne def naa deux mandat bii laay pare boo la ma joxaatee cinq ans pare. est am na benn dé am na benn détail ci xare Badar xaw ma xam nga ko wala xamoo ko. waaw kay ba mbiram Badar yonent bi dafa joxoon ay position de guerre saaba yi ne ko yow ya wax wala yàllaa wax mu neen maa wax ñu ne ko on a mieux ah c'est le même prophète la même personne ñu corriger ko am ne du loolu rek la déedéet déedéet la man danaa sosu yonent bi yàlla tere dama ne am na beneen jeeg yéeguñ ko yonent bi dafa am at moo xam ne dafa ne ma xam nga dafa am bu góor am bu jigéen ñuy dindi ci bu góor bi def mu jigéen pour tàndarma ji bëri mooy leen ren ñu boolante tàndarma yi kenn booleelutal tàndarma yi tàndarma amul nit ñu xiif mu ne lu xew ñu ne ah yaa woon bu ñu boolee tàndarma yu góor yu jigéen yi mu leen te bu ma leen waxee loo xam ne seen njëriñ nekku ci ngeen bañ koo def ay sekkee kenn yonent bi sax mën na prononcé wu fii prononcé wu fii waaye loolu tax ma Sall mënu ko. d'accord man bu mu nekkee homme d'état am na aussi son point de vue personnel <coughs> est-ce que xam nga leen na ñun dañ daan def fii les samedis di FAP dañ daan discuter ay questions surtout énergétique am na beneen bu ñëw fii ma waxoon ne Sénégal li muy euh, yàqule ci at ci at mu ne ci ñax mi nga xam ne dafay jóge ci suuf di dem ba nekk ay deux mètres wow ba seey te buñ ko dajale woon lakk ko ci ay four énergie bi mu mën a génne mën nañu jaay euh, courant ba France mu werante ceeg man ne ma non non loolu matt ko man mi ngi may dégg man ma toog ba benn bés ma gis ne euh, ñoom ñi ngi doon euh, ut doon ut ay énergie yoo xam ne mën na dewal avion mais bi ñu jëlee lakk ci four bi matt bële ñu lakk ci ñax dañu ne ñax mi pour centage bi muy joxee ci énergie moo gën a bari xam naa sax surtout occasion moom mu ne ko kat président foofu moom yaay ingénieur bi mooy li ma wax moom la gaa ñi donc pour wax la dañuy discuter. Hmm? Hmm? mooy euh, euh, tey nit ki bu waxee tamit euh, su nekkente nga xam ni kàddu gi war na wala mën a. wëlbatiku du lu bon lépp la ñuy jël téye mais lu baax li la ñuy séddoo d'après ni nga ni nga interprété waxu waxu Barthélémy Dias mais su fekkente ni ñoom itam nekk nañu représentant wu ñu ne oppose ay opposant lañu euh, seen seen seen groupe bi Barthélémy Dias Ousmane Sonko ay ñoom Khalifa Sall et cetera ñu ñu taxaw ne peuple bi nangam te saa yu ñu wootee génn ñu gis duñu wax juróom-ñetti nit comme vous l'avez dit mais les images parlent d'elles-mêmes xale yi dañuy génn mu nekk si yow mii di wax loolu. yow mii di wax loolu. alerte a ah, dama ne yow mii di wax loolu. Mm-hmm. boo gisee nii ci vidéo mbooloo mën nga xam ñaata nit lañ. non non sur le terrain dans une vidéo yow boo xoolee sur le terrain boo gisee mbooloo mën nga xam ñaata lañu mën nga ko xam mën nga ko xam de waaw mm-hmm. ah, kay. kon yow waroo wax non parce que fa ngay ji nga tey li daje ji nga li nekk makk Arafat ay dizaine de kilomètres la per tel nit ci kaw nit xam nga de ma ne mën nga ko dendalee tey Arafat mën nga ko denda waxuma contexte le nombre de personnes la wax soxna si le concentré de euh, d'êtres humains a Arafat et à la place l'Office c'est quoi c'est pas 1% de Arafat. Et tu sais, Arafat, c'était combien 1 million de personnes. Officiellement, Mingini, on peut vérifier. 1 million de personnes, nous à Arafat. Et ça ne fait ah? Ah? tous les musulmans du monde. les euh, musulmans du monde. Les, c'est pas loin de deux milliards. C'est 1 milliard 800 et quelques millions. C'est-à-dire que, loolu mooy indi léegi xam nga crise bi am dëgg-dëgg ce n'est pas une crise de l'opposition mais c'est une crise de l'entendement de journaliste le journaliste est devenu lui-même le problème lui c'est lui-même qui le crée déedéet le journaliste tel qu'il doit être nous le savons pour l'avoir été et nous le sommes toujours dans notre esprit yëf yi du loolu le journalisme ci boppam dañu war a def les assises du journalisme génne lan mooy la vraie déontologie. Ah, da ngaa bëgg a Sénégal dañuy Sénégal non actuel le discours actuel du Sénégal il est dans le souterrain il ne vole pas haut. il ne vole pas haut. am yi far wane nañu ñu bokk loolu waaye am na ñoo xam ne xam nga xam nga boo jàngee les relation humaines par exemple boo jàngoon. muqaddimatu Ibn Khaldun. Ibn Khaldun c'est le fondateur du du de, de, la sociologie. Euh, société humaine li ko sos ça part du salut jusqu'à l'hypnose xam nga nit mën ngay wax mën naa wax yow léegi ba nga tëdd nelaw mën naa wax ak yow léegi ba nga jóg sa biir bi funki nga nekk jigéenu wasi euh, euh, wérul bëgg a sëkk <laughs> loolu am na waaw lii jiitu ci nit mooy suggestion la plume du journaliste actuellement est une plume suggestive qui te suggère de comprendre exactement dañ la koy waxaale ci biir wax ji ñëpp xam nañ ne ñëpp dégg nañ ne ñëpp foog nañ ne ñëpp nangem ne fekk dara amu ca su fekkee nag ne bu journaliste bi pattee wala mu gumba ñun ñu de dama ne su fekkee ne ñun bu journaliste bi gëmmee maanaam euh, pattee wala mu gumba ñun ñu dugaale ci kàmb kon ñun kat am nañ problème non non dama le journaliste suggère n'informe pas suggère je dis bien suggère je parle français. il y a des journalistes qui suggèrent. mais il y a des journalistes qui se limitent à donner de l'information tel que l'info est taxaw taxaw ci ci polémique boobu waaye dañu bëgg xam tam. d'accord comme de toute façon les journalistes sont sur la défensive c'est assez euh, être dur avec eux revenons à nos ki ñu ñu tëjee ko ak li nga xam ne. ah mën ngaa tëj te soxna si. jox ko mu xaabaabal waaw. ci ponk bi laay wax xam ne moom mooy euh, interdiction manifestation yi. Mm. Euh, mm. dégguñu la ci. Mm. ah. interdiction manifestation yi opposition bi koy laaj chaque fois. Mm. comme nee nga doo joxe lecture politique ci wàllum casserole yi. Mm. mais au moins interdiction manifestation yi ñuy nemmeeku fan yi pour moom laa tontu dama lay laaj te waruma la laaj mais enjeu manifestation bi c'est pas manifeste pour dire j'exerce une liberté mais c'est manifester pour dire je vise les faiblesses du pouvoir. pour qu'il s'écroule le Sénégal avec c'est ça le vrai discours. qui vient l'opposition du ma leen sosal xam naa nu ñuy xalaatee kam xanaa même bu ma ca bokkul am naa ci ay xarit am na ci ay mbokk dama ñoom bu ñuy manifeste place baak heure baak nañ koy kiiweeg yëpp liñ ciy jublu lan mooy fakkatal ñay. waaw da nga bëgg nag ñaay wi ne moom comme un main droit fakkatal ma ñëw leen fakkatal ma. mais ñaay bi fa nga ne. waaw mais d'accord waaye waaye xam nga leen wutale mooy ñaay wi jaar yow yow dégg nga wolof merci. bien que sant Mbamba nga yore mais olof cosaanam bambara la en tout cas mook pël waaw léegi mais comme ñaay wi jaar na ba jàll ba yegg waaw ñaay wi yegg ak wi yeggul wi yegg ak wi yeggul. mënuñoo bokk àtte comme ñoom dañoo bëgg kii nañ def loolu gis nga euh, Macky Sall ci biir campagne bi defe naa Kébémer la woon dafa intervenir président de la République vous êtes responsable de ma sécurité assurez ma sécurité moo ko wax wala wax ko waaye de dama ne moo ko wax <coughs> ñu ne ko GIGN ñu ñëw wër ko di ko garder nañ laaj loolu non dama bëgg wax ne yoonu jaar ba yegg ak yoonu fakkatal sa bopp xanaa xamoo leen ne ñay boo ko bëggee fakkatal doo ñëw def ko nii benn xeer ngay jël boo ko sànnee ba mu def nii tànk yi pour moytu ko rek day jóoru daanu nga fekk fa te ñoom kon nag ou Macky est plus intelligent que parce que il est parvenu ba pare il a dressé un barrage pour eux infranchissable jusqu'à preuve du contraire mais ils n'ont qu'à faire la même chose je suis même prêt à les conseiller je suis prêt à les conseiller waaw ñooñu bu ñu ma ko laajee naa ne ko wax loolu du sa wàll ñun man sénégalais yi ànd ak Macky Sall ca laa bokk mais sénégalais yi nga xamante ni sénégalais yi lambda yi lay seetaan yi lay déglu di taataan sa xam-xam. waaw mais sama xam-xam moo tax duma leen fen du ma leen ni bokk ma fii du ma leen fii laa bokk. nan la ñu nan la parce que ñun ñun ñoo ciy pâtir ak lu mën ci am se se c'est jaaykatu gerte caaf bi la. se ki ki nekk ci ci ci ay business am yu ndaw la parce que boo xoolee li fi xewoon. Euh, ci euh, li li Sénégal ñàkk ci ay milliards ci suñu économie bari na. Mm. te pourtant ci diggante ñaari nit rek la woon xalaatuñ ko woon donc su fekkee dafa am benn yoon boo xamante ni xëy na ñoom war nañ fa jaar bu bokkut ak bii parce qu'ils sont pris au piège. Mm. war nañoo mën a même bu dee as sax nga nga. nga soxna si kaay ma wax la ji nga affaire opposition am na foo xam ne. même am am na ñoo xam ne dañuy wax ne toujours da ngay euh, basculer ci affaire góor ak jigéen ak jëkkër ak jabar ak mais yàlla sax loolu la fondé alxuraan mu ne humanité maa ngi ko base ci góor jigéen gis nga affaire bi góor li ñu bëgg ci jigéen ji bu ñàkkee fayda dañ koy am mais bu amee fayda daf koy jural mu nekk madam di donn du jur doom te du soxla pour demander ko sant euh, jëkkëram euh, pour doom ji am sant ak leneen problème bi su fekkee ne ku ñëw ndax sénégalais yi jàll ku ñëw nax sénégalais yi jàll sénégalais yi da ngeen di gën di ñàkk il faut que bu amee ku leen di wax ñuy xool kii lan mooy motivation am d'abord dégg nga kii dafa ne euh, Euh, naar yi dañoo woy benn woy ne histoire till ak bëy bu till sewalee baatam bay woy bëy wi ñeex baat taxul bëgg yàpp bëy wi moo tax tout le monde passe par la tête du peuple le soppi le nangam les julli mardi léegi les casseroles demain les je sais pas quoi loolu yëpp mi ngi fii mais li gën a am importance mooy journalistes yi nga xam ne dañuy suggérer ils vont s'auto-hypnotiser par leur propre suggestion waaw parce que l'auto-hypnose existe aussi il y l'hypnose wax ci li nga xam ne mooy levée des sanctions économiques et financières euh, bi nga xam ne tegoon nañu ko ci ndoddu Mali. Mhm. est-ce que Sénégal moo ci perte. Mhm. bi nga xamante ni euh, defoon nañu bu ñu ci bëri artu àddune du lu nga xamante ni day arrangé Sénégal. xam nga le Sénégal historiquement le Sénégal n'a été qu'un vassal du Mali. Le Sénégal n'a jamais existé en tant qu'État, en tant qu'empire. Le Mali si. kon yow yow yaa ngi dëkk bu la neexee nga ne Kunkande yaa ngi à quatre-vingts kilomètres de de Ngaabu Ngaabu ça signifie quoi ça signifie Mali en en en mandé c'est que hippopotame donc c'est le Mali qui a toujours gis nga kii ji xanaa xamuloo ne man bind naa dans les langues dafa nit ñi xamul. bind ci langue yi euh, santu bambara santu mandeng mooy bii majoritaire au Sénégal oui mais nga xam ne euh, Mali ci sunu port yi lay euh, ravitaillé est-ce que du ñu jàpp ne itam ci côté boobu la du point de vue économique ah allez kan la may la ah. waaw du du point de vue euh, économique ma ko doon wax. Mhm. Euh, diggante Mali ak Sénégal. Mhm. nga xam ne lu ci bëri corridor Dakar Bamako. Mhm. ci sunu port bi la ñuy ravitaillé euh, ce que du point de vue économique. du perte pour Sénégal ci weer yi nga xam ne tëj nañu frontières yi. waaw xam nga boo gisee gars yi jëlee fa AOF ñun c'était du Sénégal au Niger notre frontière c'était le fleuve Tchad le, le lac ñu ñu morcelé ñu pour mën a am du boobu doole. amul impact. loolu loolu la li tax AOF am. loolu la pour ñu oyof léegi oyof nañ ba muy bu njëkk mënuñoo tàqaleeg Mali mënuñoo tàqaleeg Mauritanie mënuñoo tàqaleeg feneen. d'accord sanction yi mooy mhm. nga xamante ni tey mhm. euh, def nañ ko mhm. si Mali vu ni ñu nekkee euh, ay voisins vu euh, économie bi ni muy dawee ci suñu diggante yaakaaroo woon ni peut Sénégal mën na rocci tànkam ci benn instant mais pas ñu bàyyi ba peut-être weeru weeru weeru jamonoy tabaski on n'est pas à l'aise doog a ni ah, Sénégal du koy def sanction Mali du ko koy dindi. mais dama ne y a un monsieur am na benn pamphlet bu mu bu bu tudd. à Moussé de Gaulle Mitterrand Sarkozy. ça nous semble être plusieurs personnes c'est toujours la même personne. c'est le monsieur qui la grande France waxoon léegi bi fii Mitterrand ñëwee ma taal drapeau bi dégg nga c'est toujours la même chose c'est Macron qui dit j'élève la sanction je mets les sanctions. évidemment léegi Macron gis na ne Russie ñëw nañ ñoom am na ñetti téeméeri at Mali defuñu fa dara ñoom indi ay wagon yu bees ay raay yu jël gasoil di jël courant di def leneen ak leneen ñi ngi dem seen yoon. donc combat dem di ko. xam nga gi gi mari san la ñaan ci samay tànk la jaar yeggagul fa ma yeggoon taalagul drapeau bi. en tout cas ñu ngi koy euh, tëjee foofu waxtu bi nga xam ne amoon nañu kat moom xoj nañu. Hmm. sinon bëggoon nañu nga am deux mots commentaire ci li nga xam ne gis nañu ko Sri Lanka manifestation yi euh, parce que inflation bi dafa xaw sonal askan wi en deux mots. Hmm. waaw li xew Sri Lanka benn modèle la yeneen gi génn. Euh, euh, guerre Russie Ukraine bi nu mu gën a yàggee réew yu ndaw yi seen économie dootu ko dootul mën a dem actuellement inflation bi nekk États-Unis moo gën a garaaw bi nekk Europe moo gën a garaaw fii waxi noppi. Ousmane Sonko waxoon na fii dina woote deux cent mille personnes ñu dem au euh, na démb foofu ci Sri Lanka. tey suba la d'ailleurs. est que donc on peut s'attendre waaw loolu la cest à que euh, l'opposition a euh, a un plan l'État a un plan même ci alxuraan daf koy wax dafa ne woyam korona woyam korona ñu ngi fexe yàllaa ngi fexe ndem yàlla sax par rapport ak ñi kii dafay dafay fexe moom itam eh, Macky Sall it day fexe ñu fexe mu fexe ñu fexe